région Kaolack nag digganteem ak capitale bi di Ndakaaru mu ngi xaw a toll ci téeméer ak juróom-ñeent ak ñaari kilomètre mu ngi am ñetti département muy Nioro du Rip Guinguinéo ak kawlak ci xayma yi nga xamante ne amee nañ ko ci ASD di kër gi saytu ni askanu réew mi toll nee na fii ci Kaolack limu nit ñi ñoo ngi ko jàpp ci million ak juróom-ñett fukk benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti doomu aadama taux de croissance bi toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar bu ñu toftal benn. diiwaanu Kaolack nag zone agro sylvopastorale la. maanaam dañ fi bay ak di fi sàmm ñu ci bëri nag ci kaw gi lañu dëkkee dinañ fi def tamit yeneen yëngu-yëngu yu ci mel ni napp ak njënd ak njaay. département Kaolack ci boppam nag mu ngi nekk ci diggu bassin arachidier di bërëb bi nga xamante ne moom moo gën a ràññeeku ci mbayum gerte mu ngi ubbeeku nag ci biir réew mi ndax foo jóge mën ngaa jaar Kaolack waaye ubbeeku tamit ci yeneen réew département Kaolack nag am ay jumtukaay yu am solo yu ci mel ni port marché juma jàngu ak yu ni mel ñi fa yewoo nag xeet bu nekk la waaye ñaari diine yiñ fa gën a ràññee mooy lislaam ak kercen